juróomee lii recensement bi nu jagleel askan wi ak tamit seenu dëkkuwaay tàmbali nañu ko fukki fan ak juróom ci weerub mai ci senegal gi nga këpp ci dëkk bu tedd bi li di Touba am na ci yenn gox yi nga xam ne tàmbalee ñu seenub liggéey li ko sabab lu bokk na ci ak ñoŋal ñu ngi ko doon amal jagleel ko leenu liggéey mën a jàpp mooy démarrage bi moom yéex na parce que on nous avait depuis le 15 la ñuy te tey on est ba tey maa ngi nii samay aér li nga xamante ni mooy seen tablette doog a pare pour léegi ñoom instant bi dañuy dem sur le terrain pour faire reconnaissance de terrain dem ci chef de quartier yi pour ñu xam ni subaam jàmm dinañ tàmbali parce que mënuñu tàmbali léegi nii waaw te cas bi ma am am na yeneen superviseur yu ko am tant bien que y dootu d'autres qui ont commencé hier je peux dire que peut-être am na ñoo xam ne commencé nañu mardi daal laa yaakaar ni comme euh, ñu bëri ci la ñu commencé. bu weesoo loolu nag ñoom ñi ciy yëngatu jàpp ne am na it yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko ci jànkuwanteel bokk na ci ñàkk xam fu nu jëm kenn ci ñoom di ko firndeel. comme ni nga ko waxee eh, comme ni nga ñu fekkee rek mën nañu wax ne eh, commencement bi demewul noonu puisque mën na nañu wax ne ñu bëri commencé na mais vu que ñun commencé wuñu ba léegi. Eh, loolu nag peut li ko waral mooy dafa am yenn souci yoo xam si ñu ngi koy jànkonteel ndax comme ni ñu wax mënoo liggéey te euh, fa nga jëm xamuloo ko wala fa nga war a liggéey xamoo ko loolu la ñuy wax zone de euh, district de recensement euh, agent yi xamuñu ko ñun nga xam si ne ñooy tamit ñun xamuñu suñu zone de travail puisque bu ñu waxee zone de travail mooy nombre de districts recensement yi ñu war a contrôler ñun donc loolu. yéex a tàmbali gi nu mel nag ci saytu gone yi féete foofule ca Kër ñan jàpp ni mën naa yéexal liggéey bi waaye nag seen kéemtalaay kàttan daanu ko def ngir laataa ñu yegg ci jeexintal bi ñu mën a amal liggéey bi sûrement dina ci jouer mais ça dépend maintenant ci DER yi ak nan lan ko war a gérer boo amee agent boo xam ne vraiment agent bi xam na liggéey bi mën na ko mën na am du tardé te DER yi aussi tolloowuñu am na ñoo xam ne ci DER yi gis naa ci ay soixante 75 ménages ñii 100 ménages ça dépend rek waaw te yaakaar naa bu mën nañ dem aussi ba nga xamante ni buñ demee ba nga xam ne am nañu pare am ñu leen euh, mm, ñëw appuyer pour mu gën a gaaw mën na am on sera dans les délais peut-être. juróomee lii recensement bi nu jagleel askan weeg dëkkuwaay wi doon li nga xam ne lu am solo la doon it luy tax ba nguurug Sénégal mën a natt askan wi ba nag seddale bi ñu mun koo amal ci anam bi nga xam ne noonu lañu ko war a amalee. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot publication mën ngeen Al Mouridiyyah leen ngeen fàtte laal cloche bi